yi ñoom waa gëm sa bopp ci préfecture yi ak sous yi ngir lañ mën liste benn bokk yaakaar yi nga xamante ne nii wóoluwuñ ko benn yoon ci Sénégal wërngal këpp mat na comme ni mu war a matee ba tax na ñoom itam amuñ benn rejet bugaan ngay deen tënk ci code électoral bi nga xamante ne nii ci bi moo ñu sant ñu mën a vérifier liste yi nga xamante ne nii déposé nañ ko ci préfecture ngir mën a leerlu ci ci projet Ndiaga Diouf mi tracé ci nii wala ci naan suñu projet bii moom Barthélémy Dias dellusiwaat ci coow lii te ñuy xamal nii a seetal kon nag du ma nangu benn yoon beneen renvoi boo xamante gis nga gëm sa bopp dafa nekk fépp ci Sénégal lii doo nga tax nguurug Sénégal gii di ko ragalee xel Sénégal ba ci mairie bu Dakar bi xam nañ lii Bougane Gueye Dany di peut lii donc nga xamante ñu moytuwul fitna gu rëy bi ñu xam ne avocat bu benn bokk yaakaar yi ñu ngi xam ne duñu nangu benn yoon violence di am ci réew mi danañ defante opposition bi ndax duñu nangu benn yoon violence du fi am la tribune yéene kaay ubbi ci xët bu yaatu ne opposition bi kay fi toll nii joxe nañu ordre fees del ci sous préfecture yi ak préfecture yi ngir modifier liste benn bokk yaakaar yi nga xamante ne nii wóoluwuñ ko benn yoon yéeni bi di ñoo xamal di kaay ba wax na nag élection locale yi naka la nar a mel ndax dèjà la bi nga xamante ñu attaqué ak ay grenade lacrymogène yéeni kaay bi di a indi ci réew bi moom ñu jot damay dem campagne électorale Barthélémy Dias di woote ci biir yéenekaay bi tey xamle ne jeunesse su Sénégal gi yépp nañu jug résistance laay woote ci àllarba ji ndax duma nangu benn yoon ñuy renvoyé waat sama procès bii Barth di xamle ci biir yéenekaay bi de bépp juge boo xamante ni wax nga ne xamoon naa ne le novembre bii dama amaat convocation waxoo dëgg lii complot la ay kàcc kase la ñu ci sama procès procès bi lay jaaree réglé abadan ndax duñu nangu benn yoon nag ñuy njuub njàkk ci suñu dossier bii vox populi moom def taxaw seetlu ci grève bi nga xamante ne di defarkatu mburu yi dugg nañ ci ne lu toll ñetti fan duñu lakk mburu yéenekaay bi duñu xamal ne Sénégal gi wërgal xamante ni dañ fay defar mburu na Sénégalais yi jàpp ne mburu du fa am te li ni mel nag day taxaw seetlu ci àllarba ji nga xamante ni def procès Barthélémy Diaz ne bu ñu moytuwul nag musiba ba kumba dina am ci Ndakaar

fitna dafa ubbi xët ak ex yi nga xamante ni dafa nar a ak candidat yi nga xamante ni Macky Sall officialisé na ko ci benn bokk yaakaar ba ci choix wu Diouf Sarr lépp Mimi mi dellusiwaat na ci yéeni nga xamante ni war a àtte Barthélémy Diaz ne waa COJER woote nañu mobilisation bu rëy ci àllarba ji itam lii di firndeel ne fitna gu rëy moo nar am ci Ndakaaru njaay gii léegi ko yéeni ubbi xët bu yaatu jagleel ko Girassi mi nga xamante ne doon nañ ko attaqué moom ak i militant fële ca diwaanu Kédougou yéenekaay bi bi def li ci Girassi bi te ñu xamal ne Fala lépp da koo programmé woon gis nga ci bureau bii ci la bàyyi

yéenekaay bi ñu xamal benn mbindaante moo rey doomam waaye nam ko reyee sax dafa ñaaw brique la jël teg ko ci biiru doomam ji daal di yéeg ci kaw brique bi nii la xale bi jaaree ñàkk bakkanam <laughs> waaw kay bii nag moo fi desoon nag duma ci débat duma ci indi benn explication ba suba ak jàmm incha allah